que amul échec ci seen ni ngeen waroon assurer déplacement nit ñi ak du sénégalais yi nga xam ne ñoo leen jox réew mi est-ce que bu fekkoon loolu taxaw na dëgg nit ñi dinañ doon am boobu boobu fitna ak boobu ragal. jërëjëf euh, maa ngi nuyaat ñëpp encore di gannaaw ni ma bi ma nuyaatee suñu kilifa diine yi dama bëggoon profité aussi nuyu suñu armée nationale. parce que aussi comme ni nga ko waxee semaine bi aussi disons ginnaaw suba. mooy suñu fête de l' indépendance maanaam bu ñuy sargal suñu république suñu armée ak suñu ndaw yi euh, di profité di ñaawlu aussi justement parce que loolu dina fexe ba mu ñëwaat ci beneen sujet bi attitude du une partie de l' opposition maanaam Yewwi Askan Wi bi nga xam ne dañu leen invité ci 4 avril bi nga xam ne république bi Sénégal yëpp bokk ñoom ñu ne duñu fa teew te loolu mooy ñaareelu yoon en tout cas ñuy wone ne seen en tout cas maanaam compagnonnage ak république xaw na doy waaru parce que bu ñu naree sos aussi bureau AMS maanaam kuréel boo xam ne maire Sénégal yëpp la ëmb depuis toujours amul opposition amul keneen ñoom dañ ko boycotté ADS ñu boycotté ko UAL ñu boycotté ko dafa mel ni en tout cas fu république bi feete ñoom dañ koy boycotté damay profité aussi di vraiment di di ndokkal président de la république bi nga xam ne am na hauteur invité leen moom en tout cas wone na ni république bi la fi nekkal Sénégal la fi nekkal maanaam bëgg na bu ñuy suñu raaya bi en tout cas suñu république bu ñu koy sergal ñëpp teewe malgré euh, situation bi am euh, par rapport à l'opposition euh, li nga wax aussi moom loolu yëpp moo indi li ngay wax maanaam l'état du Sénégal c'est un état de droit ci démocratie lañ nekk bu dee par exemple am na ay activité maanaam mel ni procès te mu am ñi nga xam ne dañuy woote fitna ñëpp dégg leen ñu ne dañuy woote fitna mais Sénégal li mu war a def président de la République ak gouvernement li ñu war a def mooy aar askan wi ci loolu lañu nekk depuis début procès bi ba euh, épilogue bi ngay wax noonu te gëm nañ ne en tout cas état bi moom assuré na euh, devoir am mooy aaru kaaraange ngi fexe ba ñu bañ a yàq euh, moomeelu nit ñi fexe ba ñu bañ a rey ay nit donc loolu en tout cas gëm nañu. mais aussi jëndee nañ ko ville morte parce que ñëpp xam nañ ne alxames moom Sénégal euh, lu bëri doxu fi rawatina fii ci Dakaaru di capital bi. waaw loolu moom responsabilité il <laughs> il faut nga xam kan moo ci responsable. comme ni ma ko waxee ñiy woote fitna mais en tout cas ñoom ñoo indi loolu ñoom ñoo war a gàddu responsabilité boobu puisque boo euh, wootee nga ne man ci jour tel. woo naa ñëpp nañ ñëw résister def li wala nañu indi fitna wala nañu toj ay nañu taal dëkk bi loolu yëpp dëgg nañ ko mais nguur bi lu muy war a def mooy fexe ba en tout cas kenn du fi taal dëkk bi euh, pour ñëpp am jàmm. waa yaa ngi ñaawlu waa Yewwi li ñu décliné invitation président mais est-ce que président li muy diwoo xeeñ na ko ndax. boo xoolee fitna bi am si digganteem ak opposition bi manque de dialogue bi am si digganteem ak opposition mais aussi décision unilatérale yi muy jël ci lu jëm ci élection yi te du ci concerté wu avec euh, les membres de l' opposition rawatina yeewe askan wi décision unilatérale moom gisuma benn bu président ci affaire élection boobu moom xanaa nga expliqué ma ko def nañu fi concertation nationale mm-hmm. ñëpp teew en tout cas presque opposition yëpp teewee ko suñu euh, institution ñu ngi dox euh, élection yi Euh, nu ñu ko waree tëral loolu révision euh, liste électorale ak euh, fixer date élection mhm. loolu yëpp suma benn problème ci ci ci. révision bi il a fallu que ñu taper du poing sur la table pour que ñu mën a fixer une date. te un mois non sur la table kay. Mhm. révision dafa mus a am. ci veille élection mais dafa am app bu ñu ko war a jox. app boobu génn nañ ko joxe nañu ko euh, ce sera du 6 avril au mais loolu je pense que kenn mënul wax ne am na problème ci loolu donc gisuma fenn fu ñu wax ne euh, euh, président mu ngi jël ay dogal unilatéral à part li ko yoon may pour organisation élection yi di ñëw donc gis ma benn en tout cas maanaam argument bu war a tax ne opposition ñu ne mu am pàcc ci opposition bi ñu ne du ñu dem. Euh, ci 4 avril monsieur euh, euh, nga ne gisuloo ko mais mais bu ñu bu ñu nemmee ko opposition boo xam ne au Sénégal entre arrestation maanaam manifestation boo xam ne dañu koy tere wala dañu koy réprimer manifestation pour un procès boo xam ne lu tollu ci quatre 400 personnes ñu teg leen loxo ñenn ñi sax ñu takkal leen ay bracelet électronique parfois des délits d'opinion di yóbbu nit ci nit ci kaso bi. yooyu noonu boo ko tegee ci kaw benn pàcc ci opposition bi est-ce que ñooñu boo leen woowee invité leen ci bés boo xam ne feet la foo ak retaan dañ la mën a wuyu si aussi non xam nga li koy wax aussi ça dépend euh, déjà euh, maanaam tere ay manifestation boo xoolee statistique Sénégal fii apparemment li ñuy tere ak manifestation matul boo jëlee téeméer demande peut-être benn lañ dul autorisé mais loolu aussi c'est que ñi koy autorisé ñoom dafa am fu ñuy sukkandiku pour bañ ko autorisé parce que bu ñu gisee ne bu ñu bàyyee lii mun na indi musiba ci réew mi duñ ko autoriser li ci des mooy euh, dafa am ñu ñu arrêté mais sénégalais fii kuy dem yoonam di dem di dikk defoo lu ñaaw kenn musula arrêté donc ñi ñu arrêté il faut que nga wax ma ni ñooñu li ñu leen arrêté du yoon du dégg ma door a door a wax ci loolu mais gëm naa ni fii Sénégal euh, bu ñu demee ba jàpp la tëj la wala en tout cas jox la bracelet électronique c'est que am na li mu waral loolu à part ku ko deful nag xam naa ni heure bi yaa ngi yaa ngi sa kër kenn du la sonal. alors euh, nanguwuloo loolu mais universitaire nga intellectuel bu mag euh, loolu noonu bokk na ci li ñenn ci intellectuel yi gis. ba bind benn bataaxal dippeeku revenir à la raison parce que jàpp nañu ne eh, dañuy utiliser li nga xam ne mooy wàllu ku yoon eh, pouvoir exécutif di ko jëfandikoo ngir bundu xataal ñi nga xam ne ñoom ñoo fare ci kujeg politique bi bi fi mujj di Hadjibou Soumaré ñu woolu ko eh, pour des questions interrogations yoo xam ne posé na ko est-ce que loolu du ay raison aujourd'hui encore de plus ci tax cette situation très tendue entre l'opposition et le pouvoir non mais universitaire yi ngay wax noonu ma maanaam intellectuel du ñëpp du ñu ay universitaire sax d'ailleurs intellectuel ñuy bind loolu mais ñoom daf damay laajte euh, ñun sax dinañ leen tontu incha allah mais euh, xam nga man may euh, coordonné kuréelu universitaire yi ñuy far ci APR am nañu aussi CCR maanaam convergence des cadres républicains ñun kan gënuñu uppale fii intellectuel ak cadre intellectuel yooyu man c'est que dama dama gëm ne dafa am fu ñu far parce que aussi mënoo nekk ci dëkk nga ne intellectuel nga nga gis ay opposants ñu ne dañu dañu bëgg jël bakkanu président de la république dañu bëgg a taal dëkk bi dañu bëgg def lii ak lii dañu bëgg a def lii ak lii yow nga noppi ci loolu ba pare jékki-jékki rek chaque fois que président moom bu jëlee dogal pour dëkk bi nekk ci jàmm ak salaam ngay bind nga ne eh, di ñaawlu loolu donc je pense que intellectuel yooyu dañu war a xoolaat seen toogaay ñu bëri ci ñoom en général nekkuñu Sénégal dañu nekk ci bitim réew di di di di yónni ay message ci suñu réew loolu gëm nañ ni dul rôle intellectuel intellectuel bu dee da nga mel ni Moussa ni nga far nga xam ne ñu yow APR nga nekk bu ñu waxee ñu xam ne kii c'est un militant de l'APR boo farul nga wax dëgg nekk équidistant par rapport ak opposition ak président euh, ak état pourquoi vous êtes monsieur le ministre euh, intellectuel yi benn la ci beneen bi mooy Amnesty International sur les libertés individuelles et collectives le département d'état américain moom moo ko jiitu beneen bi FIDH e également euh, fësal ay rapport euh, ci li nga xam ne moom mooy àq ak yelleefi doomu adama fii ci Sénégal nga xam ne jàpp nañu ne de plus en plus quand même dañu koy bundu xatal euh, loolu rafetul ci image yu Sénégal et vous ne l'acceptez pas pourquoi non déjà man comme li nga ko wax man je suis universitaire mathématicien ñun mathématicien moom maanaam excès de critique sax maanaam moo ñu gënal bañ a am critique parce que c'est la critique qui fait évoluer les choses waxuñu kenn du critiquer mais boo ma critiquer boo indiwul firnde yoo xam ne critique boobu critique bu objectif man dama lay wax ne critique boobu du critique bu objective ma indil la man tamit samay réponse samay samay argument loolu rek la gëm nañ ni ñoom li ñuy critiquer noonu en tout cas dañu dafa dafa mel nii dañoo far loolu ci ci intellectuel yi ngay wax noonu Euh, ci ci maanaam ci ci ci ci ONG yu nekk fii ci Sénégal ci ci yeneen fàll ay société civile ñoo xam ne dañuy mbubboo société civile jékki-jékki rek d'ailleurs ñu feeñ feneen ñu ne man sax finalement euh, bokk naa ci parti bi wala dem naa ci ci ci liggéeyal bi parti donc loolu moo tax nag c'est-à-dire que il faut pas aussi parce que nit ki euh, ONG Europe la jóge wala feneen la jóge lu fi wax ñun ñu ne ko waaw dégg la ñu ñu jàpp ko ñun tamit